ba tey première daamu nit bi di battre campagne ngir rek leaderam bi di président Macky Sall mën a am ñaari mandat ci réew bu Sénégal ngir naal yi mu naal ak sumb yi ma sumb mën koo yeggaleem moom soxna Fatou Bintou Pouye nag mi nga xam ne nii moom moo jiite mbooleem soxna yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca zone 2 bu Ndindy jamono ji nag dane mi ngi génn fi nga xam ne moo di ca zone ba di ko fekk am di jàmmam yi ak yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak moom te nekkee ci biir dëkk bu seer bi ci Touba ñooñu nag bokk na ca ñoom ka ñuy wax soxna Say Gueye moom mi le nag di jàmbaar joo xam ne nii mobilisé na mbooloo mu takkoo ngir teer ki nga xam ne nii moo di soxna Fatou Bintou Pouye jërë ngeen jëf naaw tertu ba nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di militant yi nga xam ne ñoom ñoo topp ci soxna Faat Bintou Pouye te jege ci gox goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci dëkk bu sell bi ci Touba kenn ku nekk jël na kàddu di wax qualité yi nga xam ne moo nekk soxna si waaye itam di wax ne daal ñoom fépp foo xam ne nii fa la soxna si xool jëmale rek ñoom fa la ñu ànd ak moom jàppale mbooloo mi ñu yàlla booleel loolu ñu gis ko ci yaa say Touba mu am yéene wu jàppale la te muy sunu yaay ñu yaakaar ko moo ñu ànd ak sunu mbooloo yépp dooleel ko mu jàppale la jàppale bi nag dañoo gis ngay soxna soo xam ne danga koo jar gis ci yow ay personnalité gis ci yow macha allah ngay nekk une femme bu am dignité am yéene ci réew mi yërëm askan wi parce que liñ la gën a jàppee mooy yërmande gi yaay puy am ci askan wi yaay puy danoo yërëm te nit boo koy jàppale dala yërëm ku la yërëmul mënu laa defal dara waaye yaay puy daf ñuy xool boo gisee yaay ji daa na ne moonu jur ñun Touba gi amuñu fi ndey amuñu fi baay waaye tumuranke wuñ ko ndar laa jóge waaye ku mën a mobiliser lii te tey nii situation bi demee la tey di alxamis di bisub mbale fa ma jóge sori di dooleel sama yaay ji waaye moo waral lii waaye mën nañ génne lu ëpp lii ma ne mu am si ñun suturnu soutenir nu jàppale ñu ku ma xooloon démb xool ma tey xam ne am naa fi ma nekk te lépp moo ma fi indi puy mën a jan ba ja président Macky Sall di ñàkke Touba dañoo ñaan yàlla mu bañ a doon tey ndax tey jii am na ay jëmm yu ko jàppale yoo xam ne am nañ ci moom yaakaar ndax lépp lu muy liggéey rek ku ko fekkewul rek ñu koy dugal ci groupe bi ndax dañoo créer benn groupe boo xamante ni pour di informer ñi nga xamante ni dañoo bëgg yaay puy am ci moom yéene di ko jàppale waaw léegi ñuy sant bu baax yaay puy kàddu yi du mën a bare du mën a sori ndax dafa guddi waaye ñu lay sant rek am ci yow yaakaar am te xam ne yaakaar ji du tas ndax ñun ki ñu àndal ñeme na fi mu jëm te jar na ko ginnaaw loolu nag mu mel ne soxna Fatou Bintou Pouye bëri na loolu ay soppee ci dëkk bu sell bi di Touba ba tax fenn fu nekk waaye nga fay bàbbeekoo waaye itam mbooloo mi di ko topp saay su nekk bokk na ca ñooñee ay liggéeykat ay soxna yoo xam ne ni ay kilifa lañ ci dëkk bu sell bi di Touba ñoom ñooñu le boot ay daayira yu takku ak ay association ak ay GIE ñoom ñëpp nag di fësal ne seen mbooloo jamono ji désormais dañu koy dugal ci mbooloom soxna Fatou Bintou Pouye di nuyu sëriñ tuuwa Cheikh Mountakha sa borom guddal fanam te wéral ko déedéet di nuyu sëriñ Cheikh Fall Mbaor mi nga xam ni mooy kilifa fii man ñëw ak ñi ma àndal di nuyu nag sama Serigne bu tedd ba di Serigne Dan mu Cheikh Abdoulaye man nag man nag bi ma soxna say woowee ñu bëri dañ may woo ci politique barke maam Cheikh Fall man ne man du ma politique ndax du ma politique mooy yaa bëggumaa wax lu ma du def bëggumaa digee lu ma du def ndax asgor laa ab julit laa kon su ma sañoon lu ma wax def waaye nag bi ma wooyee ñaar yi rek a tax ma nangoo ñëw muy benn muy soxna Faat Bintu Puy dégg naa ko te musuma koo gis te ñett yi rek a tax ma respecté ko mooy bëgg borom këram man ku may àndal dangay bëgg sa borom kër gëm barke maam Seere Faal man su ma tegee sama bagage si jaay damay liggéey juróom-ñaari siñ dan laay tifli barke maam serval su ma ko defee sama bagage dara dil si dama koy jaay ndax sama xol ko tibe gëm su gëmee borom këram yaakaar ko su ma woowee dama koy wuy si ndax laay dox ci loolu laay dund barke maam serafal wëlbatikuwaat muy doomaa doomu aadama dimbali jigéen ñi te Macky Sall bari na lu koy xañ Touba mooy leader yi fi am ñoo baatarewut carte gi ndax nit bu fekkee da ngaa nekk ay nit nga tane leen wëlbatikuwaat ñu jaar ci sa kaw di jàll lu ñu leen dox ñu def ko seen bopp duñ dimbali jigéen ñi mag du sëgg fu dara nekk man du ma politique waaye bëgg ma ko bay mag bi ma ko tax ma bokk am naa ci yow yow say tubaab confiance tranquille ah. ndax sa yaay suñ kër la yeroo màggee fa yow fa nga jógee ba jóge sëy kon man yow am naa ci yow ndax xam naa la ñaareel bi soxna Faat Bintu Puy dégg naa lu baax li muy def gëm na borom këram bëgg na ko te man damaa bëgg sama borom këram gëm ko kon ku ko gëm ko lay ànda yow ginnaaw kàddu yooyu yëpp nag ki nga xam ne soxna Fatou Bintou Bouye seet si woon ñu koy wax soxna say Touba nag yëkkati ay kàddoom di fësal lan moo tax mu ànd ak première dame bu Ndindi bi waaye itam lan moo tax mu ànd ak gor si soxna Fatou Bintou Bouye itam nekk jàmbaar yi fàkk tëdd di fësal ne li nga xam ne nii moom moo di mandat président Macky Sall moom su président Macky Sall tëddee mën naa nelaw ndax soxna Fatou Bintou Bouye mën na koo assuré jigéen ju maandu ji nga xam ne waañam sëriñam këram donga yi moo ko ñor ak waajuram di taalibe bu bëgg sëñ Fallu doon citoyen boo xam ne nag tubaar fa kàlla ay diplôme moom la indaale denc lépp toog ci waañ di liggéeyal sëriñ Fallu soppi jigéen ñu bari ba bu ñuy lal mbaa ñuy crédité mbaa ñuy taaj moom la ñuy laaj xalaat mbaa ñu ne ko dimbali ñu ci kon ñun sëñ Fallou ñu fayee soxna Faat Bintu Puy soxna Faat Bintu Puy nag mooy jigéen ji nga xam ne moo feral sama rangooñ leeral sama bët beesalaat ma taq pikiir ma vitamine may maaj nu ma neexe tàccu leen loolu sëriñ Fallou rek la ma jàppe defaluma ko dara mag laa sama doole baree tut waaye maa sama bëgg ak sama gëm di ko xoole Cheikh Mamadou Fall mu jàppee ma Serigne Fallou may ànd ak moom di ko fekki di ko xool ngir Serigne Fallou mu dama teral ku ma xamoon xool ma na ma màggate woon na ma froissé woon na ma sonne woon xam ne soxna sii kat beesalaat na ma delloosi nga ma nañu dundal nañu dundal si la docteur nañu dundal nee na bëgg nañ faat bintu ba nañu rey macha la cet tubaar fakkaale yaay puy fii ma defe si bis bii fii laa dëkk sama kër rakk ji topp ci man Amadou Seen mi ngi ci biir dina génn nuyu leen moog waa këram soxna ku ne ñëw ak sa yéene ku bi ma ñëwee wax ak yow danga ma ni bëggatuma dara gisatuma dara lu ànd ak yow jox la sama mbooloo nga liggéey soxna Fat Bintou Pouye liggéey bii nag ñoo ko sosoon ñun ma penda ka faate aada ka sa baay faal bi su ko jébbalu ci yow faate aada ka faate aada ka penda ka absatu ka xadi sàll sama secrétaire ñëw nday tàkko dani ma sama doom dafa am doom ñu war koo ngente àllarba aj naa ngente li ba àllarba bi dellu siwaat ndax sa jëmm mi ngi ni toog dajale xayra gépp teel a ñëw carte d'identité yi ma yor ak bi ñu bind yëpp moo ko moom nee na ma duñ wate fenn lu dul foo ñu yebal loo wax lañ wax ñoo ngi ci yow ak yaay puy soxna maam Faati Faalum Serigne Cheikh Mboor mum siit naa liw mum Cheikh Ibrahima Fall ne ma say ma ne ko mu ne ma sama fédération baay fukki daayira la ak ñaar barke maam Cheikh Ibrahima Fall samay jinne rek may sayloo ca man yow laa am kenn musuma nangu kenn jël ko ku ko jël man nanguwaat ko ci ñoom jébbal naa la ko nañu ànd ak yow ak man ba ca soxna Fat Bintou Pouye kon yéen soxna maam Astou Fall ànd ak waa Diyoli gépp ma dégeen dem ba ñëw tubaar fa kàll mi ngi nii toog soxna Sooda Fall ànd ak sëriñ am bi moom Cheikh Mamadou Fadal ma kontaan naa sama xol sedd na sama koñ bi ñëpp génn nañ sama koñ bi ñëpp génn nañ Kaja Sall di Xadi Sall bàyyiwut Daaru Tamsir bàyyiwut jànnatu bàyyiwul umul xuraa bàyyi faal ga waxal na ko boppam léegi di nit ku baax ku ma bëgg di sama taaw laaw la cet ma jébbal la ko moom it waa Mbàkke ñëw nañ wejji fay ñoom kenn toogut ci ginnaaw kàddu yooyu yëpp moom soxna Fatou Binetou Pouye nag ci daal di yooga yëkkati kàddoom di fësal li nga xamante ni moom moo di ay projet am nga xam ne ni fës nañu ko sumb ak jigéen yi dëkk bu sell bi di Touba muy fësal daal li nga xam ne moom moo di yéene joojulee bu ñu ko voteelee ci ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu dëgmal naka ndax li ma waroon a wax lépp soxna si wax na ko soxna si Ndiaye moom wax na ko dañu ñëw tey pour soññ leen wat waxtaan ak yéen saafonte ak yéen wan leen ne réew mi bu dul ñun jigéen ñi dara du fi dox gannaaw nag ñun ñuy jigéen ñi ñun ñoo yor économie dëkk bi ñun ñoo yor doxinu dëkk bi kon ñu jub ci ay élection présidentielle ce président bi nga xamante ne moom moo fi nekk war a demaat ay élection ñu war koo jox deuxième mandat te réew bu ne ci àdduna ñu ne ab président ci dëkk war ta def benn mandat ñaari mandat day gën di wóor ndax bu fekkee benn mandat la dëkk ba mun na nekk ci insécurité ñun ñi ñoo war a jóg taxaw ñun ñi jigéen wane ne ñu duñu nangu insécurité ak instabilité am suñu dëkk moo tax président Macky Sall ñun ñi nga xamante ne taxawal nañu waa Touba ila Touba rek dafa doyoon pour voter président Macky Sall. président Macky Sall ñun ñi nga xamante ne bourse familiale yi mu dugal euh, ci dëkk bii di Touba amul feneen fu ko ko dugal ñun ñii waa Touba dañoo war a taxaw bokk ci ñi koy fal donte donte. ñaanuñu ko donte waa Touba voté luñ ko sax ñaan nañ suñ borom mu may ko ndam li ñu ñi koy fal Touba bokk ci ndax Touba bu njëkk ba dañ daan wax ne ñooy fal ñooy folli bu ñu demee nag bay président di falu ak a folleeku te Touba doonu ci dara kon ñun war nañu xolaat suñu bopp ñun ñi jigéen nag ñoo war a jóg tàkku wane ne ñun ñooy fal ñun ñooy folli te dañoo tànn benn mbër ci mbër yu juróom yi nga xamante ne ñoom ñoo fi taxaw muy président Macky Sall ñaanal ko mu am deuxième mandat te mu àggax jàmm ak salaam président Macky Sall tàmbale na jigéen ñi projet bi ñuy wax DER te yéen ñii ngeen gis ci seen bopp ñi ci gisagul seen bopp nañ ñaan mu am deuxième mandat ba mu yomb ci ñoom te bu agsi waatee ak jàmm ak dina agsi ci yéen dina yomb ci yéen jour vingt quatre février nañu teel a xëy ñi jëlagul sañu seeni i nañu dem seeti seen i ay carte ñi jël ba pare nañu dem identifier seen lieu de vote ndax boo teelu identifier si sa lieu de vote mun nga xëy dem fa naan daan ñu ne la du fii te bu boobaa rëq-rëq day doom te dafa baax ci ñun bu ñu demee fa ñu war a voté gi nañu tànn suñu mbër mii di président Macky Sall. kartam mooy carte bu beige marron bi. rafet bi rek. carte bu rafet bi mooy kartam bu ñu ko jëlee nañu jël enveloppe bi bu ñu neexee ñu jël ko roof ko ci biir waaye bu ko kenn kole ndax ku kole enveloppe am rek wala ku ci xër ba dugal ci ñaar wala ñett wala ñeent andil nga ñu ñun ak fitna ndax boobu ba tey ñu ngi dox di wax. pour que nit ñi dem voteel ko boo defee benn erreur ci bés boobu rek yàq nga lu bari yéen ñii nag jigéen ñi fu mu nekk nii li war a nekk ñun suñu ay priorité mooy nañu jàngal suñu mbokk suñu digg suñu suñu si suñu biir moo tax ñu jox leen ceeb bi ak enveloppe bi dee nañ ci def ay mbaxal di waxtaan wala nga ciy def yi puuj paaj wala ay daxin dee nañ ci waxtaan naka dañu war a dem voté ji bu ñu demee voté ji bu ñu ñibbisee tàkkusaan kenn ku ci nekk na déglu président Macky sàll zone ba mu gañee ñu génn fa dem fête di victoire bi ñun daanaka fii du suñu zone fii xayra la nit ñi mooy suñu zone waaye gannaaw nag zone 4 la waaye gannaaw nag dañ fi bari soppe bari fi am di jàmm soxna say Touba bii nga xamante ne lu ma yëkkati lu ne mu bëgg cee gën a fës ñëpp moom moo tax ma génn tey jii nit ñi ñëw agsi fii waaye ba ñu tàmbalee café ba léegi kenn mënulaa ñaata kafe dañu dañu def waaye bu tey bii moom daf maa yitteeloon ndaje mi takku woon loolu bëri ay kilifa waaye ay nitu personnalité yoo xamante ni ndaje woon nañu ci kër soxna say Touba ak ñeneen i gox ci biir dëkk bu sell bi ci Touba ngir ñëw soutenir waaye itam ngir ñëw dooleel waaye itam jàppale nga moo di soxna Fatou Bintou Pouye ngir mu mën a jàppale nga moo di président Macky Sall ngir mu am ñaareelu mandat ci réew bu Sénégal ci ngoonuk ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février